waaw mooy li ma doon wax at à rek waa ji yàgg nañu liggéey suma partenaire la ñu xam nga tey bu organiser lu mel nii damay ñëw teew quoi ànd ak suma gars yi suma staff sumay xarit ñëw teew ñëw jamal bés bi loolu la quoi du leneen. ah. neex la def neex wax dëgg yàlla vraiment ñi ñu fi boole aussi di ay jàmbaar parce que boxe Thaïlande bokk na ci sport yi gën a métti kon xale yi koy def nañ leen encouragé ñaanal leen quoi. parce que sport bu méttee métti la quoi wax euh, ko fi taxalee euh, dina waaw parce que xam nga sénégalais yi ko bëgg bëri na bien vrai que li fii am bëriwul xam ñu gën di def ay événements yu bëri quoi comme ça xale yi gën ci gis seen bopp quoi parce que booy xool fii Sénégal tey man mbër la bo mais yeneen sport yi xam nga dañu xaw a ay boxe yenn saari kii doo ko fi dégg quoi. wala boog xam nga boo ko fii dégg coow li demeewul noon quoi c'est normal comme affaire u xale la te xale dañ ko bëgg gën koo xam nga ko te gën koo xam rek gën ko amélioré comme ni ko gars yi waxee xam nga gën koo tee affaire yi jëm ci kanam quoi voilà loolu la euh, waaw comme ni ñuy waaj rek ñun moom xam nga bés moom ñu xam nga yàgg nañu waaj bés bés moom min nañ ko quoi loolu la naka ngay waajalee ah? koy defal bagage loolu moom anyway. Ah. waaw loolu la quoi. premier bon damay nuyu Sénégal yëpp di leen ziar ñoom ñëpp euh, première question mooy sama teewaay si ñaari kilo ñaari ñaari ñaari mbir la quoi mooy benn bi.

kon nag euh, préparation yi ñu ngi si des na tuuti rek mais di ñaan yàlla yàlla yóbbu si ak jàmm sénégalais yi jàppale ko ba bis yi mu organisé yëpp mu am réussite totale ñaan yàlla may ñu ndam incha allah rabi. waaw combat xam nga boo gisee sama sama interview passé deux ans si ginnaaw trois ans lii lii rek laa doon wax mooy nañ jéem a yaatal sport bi. sport bi du làmb kese MMA la kickboxing la boxe taay voilà xam nga tey bu ñu demee ba organiser lu mel ni Sénégal. gaay yi mën nañu am inspiration sax pourquoi pas mburu lambi yu bari bari ni nga mënu ñam combat bari dóor ñu am combat yi waaw motax tax dañ ko wara yaatal te li euh, international la lamb xam nga boy set senegal presque fa la yam mais li international ñokay koy kon nak ma ngi invité mbeuri ñu ñu ñi nga xam mënuñu am combat bari dóor man nañu mélanger li ak bari waaw kon nak ñu ngi koy encourager bu baax a baax waaye sa way de léegi neen da yóbbu à retraite no day wax rek ah. ñii magante wuñ doon de. gars yi liñ dagga bari de. gars yi mbëri. Hmm. li bari xàppatee bëri. waaw li jaay mooy encourager sport sénégalais rek parce que actuellement. Euh, euh, tey Eric mi ngi def lu am solo quoi vraiment c'est un gars encouragé quoi boo xamante ne vraiment mi ngi bay yëkkati sport bi kon ñu ñëpp dañ ko war a encourager. xam nga pour mu dem ca kanam parce que tey kickboxing bi nii boo xoolee lii bu foora di am di am lu mel ni MMA lu mel ni boxe anglaise affaire bi dina parce que sport moo mën a yëkkati réew quoi donc man ci laa nekk maa ngi Imamour Kébé ak le président kan bu LFC ak le président Mamour Sène euh, bi nga xamante ne mooy boxe euh, fédération boxe sénégalaise ak euh, le maître Dame Seck moo ñu yor euh, Samado moo ñu yor Aikido et tout donc ñu ngi ñu yokk suñu expérience pour xool ni ñu accéder au niveau international ndax boo xoolee tey euh, Francis Ngannou moom moo jël champion du monde MMA UFC donc kon war nañu am courage dem ñu yeg suñu rakk yi ñëw eggalul ñu ko donc ñun ay combattant lañ amul lu ñuy calculer ci loolu donc ay combattant lañu ay combattant combattants mës a voilà leneen gens ci ont c'est de plus mais actuellement li ñu bëgg mooy boxe anglaise sénégalaise euh, boxe anglaise bu Sénégal ak euh, aïkido beeg yep, yep, dañ ko bëgg a liggéey ak MMA bi ñu liggéey ko bu baax ba accéder au niveau international. voilà c'est ça di encourager aussi sunu sunu frères yi ci nekk yu mel ni ay Reug Reug yu mel ni ay Siteu yu mel ni ay Bombardier vraiment ñu encourager bu baax di bon courage. sport bi noonu la vraiment ñun tamit am na yeneen booy yi ñuy tàggat pour bu ñu leen wane yoon booy ñëw jël champion du monde ñun loolu ci loolu la ñu nekk sport moo mën yëkkati réew voilà ñi leen di bégee di leen bégee di leen jaare ah non daal après dañuy yéeg ci kaw maa ngi waaj ñu ngi xam naa li ñu des bëreetul ñu ngi ci réglage yi quoi waaye bu ñu dawal ma defaree leen <laughs>